Sunugal 24 point euh, nga président waaye tamit euh, soxnaam sa xarit la. waaw Mariam. Euh, mën nga ñëw ci seen relation yéen ñaar parce que mel na nii jege ngeen trop yéen ñaar. soxna Mariam sama xarit la. Mariam c'est ma intime c'est sûr. mu doon dara mu doonul daraa ci mi nga maafuus ku doy waar laa nag su ma la xasee téye bu asamaan doon màbb sama loxo duma ko bàyyi bul defee ne dara yëngal na Iran dara dérange ci àdduna bi ma xamee ne yàlla sama borom laa noppalu Mariam sama xarit la xam nga lu nu boole li ngay laaj xam nga lu ma Mariam njëkk a jox ci xaalis def ko ci daara ji deux cent waaw deux cent mille kee ñoo ànd kii muur fay la tudd mu nga dëkk barñi mu nga nele ma jógee conférence dëkku séeréer yi xale bi mu nekkal suma doom la Kumba Jàllu madame Mbeng moom moo ma def papa oo ma téléphone xaw ma ko mu ne ma madame moo ñu boole xaw ma ki muy wax ma ne ko kan la mu ne ma soxna président mu ne ma petit palais lañ ne man xaw moon réew mi am na pale bu mag bu ndaw wallahi wal quran man jaay radi laa xam ak galaas ak ndox man xaw ma leneen mu yónnee ma ko ma yebal ku ñuy maxtaar mu ngi Espagne wala Italie actuellement moo dem jëli ko fekk ma ca cité ñax may conférence waa poste de santé bi pour benn machine buñ soxla pour ma dajale xaalis buñ ko jëndee Marème yónnee ñu ko ci suñu bésu daara ma gis ni muy sonnee ci daara yi gis ngay Mahfouz bul bàyyi ba Iran dee ngay génne samay wax amul njëriñ bul bàyyi ba ma dee ngay seede ci man amul njëriñ nit nangul léppam ci dundam alquran nee na wala taktumu shahadata wa man yaktumha fa innahu aasimun xalba soo xamee ci mahfuus lu baax yow caméraman ñu wax la waxal lépp yàlla nee na boo ko waxul da ngaa añaan te feebaru xol ko am doo dem aljana Mariam suma xarit létti daaraa ñu boole day sonn ci daara yi benn daara bu ne Cees sëriñu daara ko abal kër gi ñu dem ba mu yàgg boroom kër ga soxla këram war ko jaay six millions cinq millions ñaari ñaari yi ma tudd benn fenuma ci six millions ou cinq millions benn la ci xaw ma fu ko mareem yéegi xëy xëy yoon ndaw jënd kër ga jox ko sëñ daara ba bii rek doy na bii ma la wax nii rek maa fos doy na sëñ daara ba am na kër am na fu mu jàngale am na fu mu fat njabootam baadu na tukki loole bu ko yàlla fayee mareem fay doy na léegi li dégg ko ci maladie. man demal naa ko daje Ahmed Bachir Kounta nga foon Oustaz Alioune nga foon xam nga daje ba lan la paa yi feebar ne ci àll bi amuñ ku leen jàppale ñu wutal leen ay douche fa ñu ne wutal leen ay lal wutal leen lekku mag lii moo doon daje ba lekku mag man bu ci sama maam nekkee dimbaliwuma ma ah? sama baay bu ca bokkee dimbaliwu ma bu ci sama mbokk mbokk yi dimbaliwu ma donc loolu ku koy dox ci réew léegi léeg mu juux ci hôpitaux yi hôpital régional jaar na fa bu yàggul gis nga yàllaa ma nattu lu mu def ma yëg xaw ma xaw ma liñ xam suñu diggantee tak lu mu def ñu ooma téléphone baa ñu yónni ma vidéo bi. mais li ngeen di gisante bari na. jamais jamais su ma ne duñ toog doo ko gëm. Marème bu dee danañ wax téléphone ñaari at wala benn at benn yoon lay doon du ko weddi parce que xanaa duma ne ci sit bii di kàcc kenn dox suñu diggante Kumba Jàllo xale bu mu nekkal wowal sa pàpp ne ko nàngam Kumba ne ma Marème nee na nàngam ma ne ko baax na dégg naa ko jeex na léegi léegi ma gis dara ba bër ki démb wax naa ko ci defe naa benn boutique bu mu demoon xam ban palaas waaw te ñu song ko fa voilà Sandaga ñuy wax ma ko ma woo Kumba après tabaski ma ne ko waxal Marème ne ko àdduna neexul te nit ñi yemuñu su dee génn dina am sécurité su mënta ñàkk génn su fekkee mën naa bañ a génn mu yónnee àdduna neexul ma tegal ko ci ne ko am na réew yoo xam ne su doon moom mën nañ koo ne cas ne mes chantage jëkkëram Sénégal day dëkku diine rek di dëkku kilifa mën nañoo coow mais duñ def mënuñ lu bon maa ko wax kumba te ko dañ ma oo téléphone yónnee ma bi ma téléphoné kumba wax ko ko muy jot du téléphone ma mare waxuma laa marem laa woo de kumba laa woo explique te li ma wax jaadu na ndax àdduna neexul te yéene yi du benn doomu aadama yemuñu yéene am na ñoo xam ne sunu gaal 24 buñ ko buñ koy liir danañ ni wayu waay site bi yal na gën a avancé am na koo xam ne day sappe jàll feneen loo ci man yéene du benn mareem suma xarit la lu tax fonk na daara bëgg na taalibe yi bëgg na sëñ daara yi bëgg na ñi néew doole bëgg na mag ñi mu ngi dimbali handicapé yi jël nag dajul suuf waaye lim man mu ngi koy def tiit tiit ku waxal yàlla ku ne jaar na fi def mais jëfam bii ci moom la yem dañuy ñaan ku fi ñëw ëllëg taxawoo noonu daara wala nu ko ëpp mu ne ci nguur nekkul ci nguur man bu ma la xasee téye maafu see sa kàddu gu mujj yi tëj li ñu cëraloon ci waxtu bi jeex na. waa jërëjëf Mahfouz sama kàddu gu mujj mooy Khalifa Sall rek. waaw Khalifa Sall daal mooy sama kàddu gu mujj ak ñaan réew mi dal waaw gawuma ko woon parce que nit du ko génne yàlla loolooy suma yuur man gis nga boo ma diggoon dara Mahfouz damay ñibbi taan duma la xaar parce que yoroo mënoo yàlla rek a mën. Sunugal 24 point net l'information à sa juste valeur, c'est ici même Sunugal 24 point net.